coopérative économique la kon day jàngale alquran waaye day yëngatu ci yaxam toogul rek da yaafus doorut mi ngi ci daara ci mi ngi ci waar mi ngi ci tool yi kon kooku mooy sëriñ Umar Bamba اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المعطي وعلى اله وصحبه وبارك بجاهه في نطق الحقيقه. mbokk yi ñoo leen di jël kàddu ak torodo di jël kàddu ak humilité ci kanamu le peuple sénégalais di toroxlu dafa gën a sore suñu xol ak suñu roof ci kanamu peuple bu mag boobu ci suuf su tànn soosu nga xamante ne moom la yàlla tànn wàcc ci jëmm ñu sàll ñu tubaab ñu ci wàcc waaye peuple bu mag boobu ci ay jikko peuple bu mag boobu ci ay melokaan peuple bu mag boobu ci ay valeur bokk yi peuple boobu ku dagaan seen kàddu ngir na da nga leen a war a teewal ca ndomb lan seen ña la war naa parti bu mag bii nga xamante ne moom lañu wax Pastef bokk yi Pastef ku ñu ko naw Pastef ku ñu tànn Pastef ku ñu dégg war ngaa yëg ne responsabilité la waaye privilège ndax parti la boo xamante ne ñi ko jiite seen xel du jóg mukk ci inda bagala min misaal loo def contrat boo signé nomination boo def commission boo def prise de parole boo def position boo jël dans la géopolitique mondiale da nga xam ne maa yalfidu min xawlin illa ladayhi raqibun atid mbokk yi li ñu dëgmal ñu ngi koy natt ci daywaayu mbir mi ñu ngi koy natt ca la mu toll ñu ngi koy natt ne askan bi dénk na la lenn ca la koy ak lu mu mën ko moo xam nomination boo mën a nekk moo xam position boo mën a nekk waaye fa nga toog askanu Sénégal teg la fa war ngaa mesurer les choses à la à sa juste ba tax na ñu ngi dellu di yeesal suñu jaayee ak le peuple Sénégal di peuple boo xamante ne duñ ko war a mukk ndax daara ji nga xamante foofu la ñu jógee te jëmm yu sell yooyu yàlla wàcc fii ci suufu Sénégal mooy ko ak jikko yu kaw yi ko mooy mënuñu ñuy dox wala ñuy wax di wuute ak dëkk. wuute ak principe yi nga xamante ne moom la ñu gënoon sunu maam yu tedd yooyu waaye ñu ak valeur yu mag yooyu nga xamante ne moom la daan di tàgg ba tax na su ma doon décrire li ma jëm ginnaaw esprit de combativité ndax lii ñu nekk xare la ne kenn nekk ñun li gën a ndaw ci li nga war a mën a joxe mooy sa bakkan position boobu laa amoon dëkk ñuy jël góor biñ ko jëlee daa ko gën a renforcer ndax jëlum réew gën la waaye doxal ko ba àggale ko fa nga bëgg fa nga gox lañ doon jëm muy gox li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolee ba leen gën la mu gën a mag mu gën a gaaw ñun nag amuñu droit de savoir ndax daara lu réew mi mel daara yu ko melal mbokk yi ñun ñi ñu doon ñoo mënoon toolu xale ñi ñu doon ñoo mënoon lu bari ñi ñu doon ñoo mënoon ci nose askan wi ba ñëpp ànd di dund ci jàmm kon ñun waru ñoo ko jël suuf bi mu kon tey bu ñu demee ba dégg mbal ay élection ñu tànn ay doomu daara doomu daara ñu ngi wax seen mbokk taalibe yi leen yabal ne ñu ngi sentir le poids de la responsabilité di sàkk seen ñaan yéen ñëpp nag xew ñu ci kenn waaye di sàkk seen taxawaay ak seen engagement toog ak la wax bi ma doon te Dakar baaxul kenn ku nekk ci am na capacité yu ëpp yi ma la war ko mën a représenté kon su ma ko yëgee ko yëgee problème boo xamante ne man nii samay war te incha allahu taala war naa leen leneen li mu def nag mooy ak ñi nga xamante ne ñoom lañu jàkkaarloo certes amuñu matière loolu moo tax dañuy wax ñëpp ci désinformation rek tuumaa la sosalaat loo xamante ne bu ñu la jàmbalee ba ci biir da ngay xam ne ñii ñu koy wax dañoo ñàkk argument ñàkk argument rek li leen ko yóbbee mooy dañoo jàkkaarloo ñoo xamante ne du ñu ñuy mayee dara mooy bu ñuy nawee dañuy càmbar bu ñuy fal dañuy càmbar lu ñuy def ñu dañuy càmbar ba am loxo yu set ak am moralité doog ko dig te loolu mooy Sénégal soxla ngir ba ñu bëgg jëme leen mën faa kon daal mbokk yi maa ngi daaneel sama kàddu yi woo Sénégal yi di woo surtout yéen waa yi ndax projet bi li tax ñi gën a comprendre ci politique dégg ko ba mu jàll leen lépp yéen yéen ne kon levier yi nga xamante ne yéen seen yóbbu la bonne information jusqu'au moindre recoin du Sénégal jëlaat leen seen bâton de pèlerin jëlaat leen seen way jaay tukaat leen ci rëpp yi waxtaan leen ak nit ñi ne leen naa ñu may comprendre ci rek nit ñii ñuy fal jàllal leen ci àll bii ngir ñu rëpp Sénégal dundee dina leen jox arme bu ko mën a sëkk muy une majorité écrasante astafurlah une majorité confortable le soir du 17 novembre 2024 asalaamaaleykum wa rahmatulah